maaleykum maaleykum salaam tey ñu ngi kilifa diine yi di nuyu waa Wakaam di nuy jeunesse Wakaam di nuyu kilifa Wakaam di nuyu ñëpp di nuyu jeunesse Sénégal di leen xamal ne tey dañu woote. pour mbëbët benn bis bu rafet muy le 15 octobre ñu war si sargal président de la république son excellence Macky Sall kon tey lu waral sargal boobu dañ gis ne dañ gis ne président de la république réalisé na fi lu bëri loo xam ni kon tey jeunesse bi war nañ ko mën a delloo njukkal tey ñu ñëw si leen gis président créé fi lu bëri te lim fi def jeunesse bi nañ xoolaat président yi fi jaar yëpp defaluñu ko tey président de la république son excellence tey ñëw defal ñu benn bisu muy stade symbole ñu toog ay at munuñu ko am président ñëw réaliser defal ñu ko fii tey ñu dem si làmb président andi ñu stade ñu dem sport si basket président andi ñu stade kon tey jeunesse bi war ñu def dara lu dul delloo président de la république njukkal kon looloo tax tey jeunesse bi ñun ñu bëgg ko jël ñu sargal ko ci le 15 octobre ci turu Khadim Cissé Gaynde piir les jeunes engagé encore une fois nga seet na tey président créer na DER bi DER bi créé nañ ko tey tey boo xoolee président bi mu defaree DER bi ay jeunes rek ñoo ciy liggéey ay jeunes ñoo koy piloté tey ñu ñëwaat dem ci ay financement gis ne président teg na employé yi na quatre cent cinquante quatre cent soixante milliards pour financement pour employé pour jeunesse bi kon tey jeunesse bi amuñu dara lu dul delloo président de la république njukkal xool ne tey jeunesse bi nga xam ne ñooy jeunesse conscient jeunesse bi nga xam ne tey seen xel ñëw na buñ xalaatee kon waruñu nangu tey kenn di ñu dugal ci ay reyante ci violence jeunesse moomul violence jeunesse moomul xadar jeunesse dafa moom conscience di xalaat di xool lan mu lan la war a def ëllëg mu def ko tey dañuy rafetlu lépp nga xam ne président de la république mbébét na ko ci ay engagement am ci ay projet am kon tey ñun dañ ko war a gunge pour dañ ko war a gunge ànd ak moom ci ay projet pour gunge ko pour mu liggéey mais war ñu tey jeunesse yi nga xam ne tey ànd ñoo seen conscience war ñu tey dem ci fitna parce que fitna baaxul réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk kon ñun ñëpp dañ war a ñëw ñu liggéey réew mi Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar te duñ nangu mukk fitna di ñëw fii si dëkk bi fitna bu fi nar a ñëw dañ koy arrêté fitna bu fi nar a ñëw dañ koy téye di leen xamal ne Khadim Cissé mouvement des jeunes engagé moo bëgg sargal le président de la république le 15 octobre si monument de la renaissance di ci woo Sénégal yëpp di ci woo ñëpp di ci woo ay tur yoo xam ne nii mënuñu leen ñàkk bañ a cité di ci woo invité d'honneur comme Samba Bathily Diallo jaraaf Youssou Ndoye jaraaf alin Guèye jaraaf Alioune Guèye diwoo woo Anta Sarr Diako di woo Bouna Kanté di Victor Sadio Diouf diwoo woo Omar Guèye di woo Djibril Ndoye Thié di woo Madame Thiam aux Almadies tous les membres du gouvernement ñu ngi leen di woo ci bis boobu noonu di leen wax ne pour ngeen teew ci di leen xamal ne bisu président la fi may tëjee rek di ko ma leen sama yaay Marème fay sàll nga xam ni bis bi moom laa ko jagleel bis bi moom laa ko jox su ma yaay jooju nga xam ne suma yaay la moom a doomoo kon maa ngi nuyu Sénégal ñëpp den ñaan ñi àgg si jàmm yàlla nañ si yàlla àggale si jàmm si bisimilahi rahmaani rahim jee ko jeexee ko si alhamdulilahi rabil alamin merci Sénégal